ngir am ay xibaar yu leer te wóor ak lépp lu xew ci actualité nationale et internationale Abonnez-vous ci sa chaîne bi di ASG Production wasal yéen mbokk yi di mbokk taalibe yi ñu ngi fii ci cité jàmmulaay bi di waajal euh, ñaari rakk julli ah, programme bu tey bi nag euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ko tuddee euh, tey jii li ñu jàppoon mooy def durus bi waa waa Hizbut Tarqiyyah ña nga fa ña nga ca base ba commencé nañu jàng xaside ak alxuraan ji ñu war a jàng ak li nga xamante ni mooy programme ngoon bi nga xamante ni buñ ci yàlla dimbalee durus bi day continuer dem waaye it xalif général day Baye Fall dafay ñëw ñu war koo recevoir fii ci site bi. waaw bu ñëwee nag boo toog ba mboolem bi toog ba ñu waxtaan def li ñu wax war a waxtaan ba noppi ci guddi gi nag dañuy fanaan jikkulaay bu bët set suba nag mooy bis bi nga xamante ni moom lañuy màggal muy bis bi nga xamante ni Sëñ Tuubaa julli woon ci digg géej waaw bu ñu xëyee suba ni ñu ko defee rek maanaam dañuy wàccee dañuy durus jàng arxuraan euh, ba ba ba midi suñu yàlla dimbalee bu ñu egsee ba ci ngoon si ah ñu ji di tàkkusaan ki nga xamante ni moo ko jiitee mooy euh, euh, imaamu Tuubaa bi di sëñ Fallou Mbacké Abdou Khadar incha allahu rabbi su ko defee ñu def suñu cérémonie officielle bi waaw ñu ngi woon nag mbokk yu di yëpp mbokk taalibe yëpp waaw ren nag dafa am événement boo li ci nga xamante ni moo ci gën a am solo mooy mun Muntaxa bi mu jëlee soxna Soodu Xuma jiital ko ci mbir mi daf cee boole daf cee taftal waa Hizbut Tarqiyyah yi wax dëgg yàlla depuis bi avant màggal bi kuma liggéey bi commencé ba léegi bi ni ki liggéey ba léegi ñoom tooguñu noppaluwuñu ñu ngi ànd ak ñu ci liggéey bi macha allah lépp mat na fa tabaarkalla waaw

Allah'ın loolu mooy euh, euh, sant rek ndax euh, mbir la moo xamante bi jàpp woon ne war naa mën a ne ndax màggal gi mu sësoon jóge ci màggal Tuubaa ak ni màggal toll ci yoonu murit matul ay bés ni ñu bëgg a taxawal lu mel nii bu ci ndimbalum sëñ bi duggul woon du yomb te dana metti waaye biñ ci xalaatee sax xamoon sësale gi bëgg a waxtaan ak sëñ Muntaxa ci mbir mi moom ni mu ko gisee ci taalibe bi nga xam ne ak taalibe kenn mënu koo xiyaas ñi mu toll dafay nañu boolee màggal gi ak julli géej gi muy lenn ndax di ko toxal ka daan day àdduna lan lañ ci dugg te du noonu waaye ndimbalam lu fekk nañ ci wax dëgg yàlla ndax barki démb rek lañ commencé travaux yi waaye gis na fi mu toll daanaka installation yëpp mat na finition yi rek mooy ci des lan lay moquette ak yooyu waaye dañ ci war def lépp macha allah parce que sori nañ a baax a baax innovation bu njëkk bi ñaar la mooy euh, entité bu toll ne Hizbut Tarqiyyah ak li mu représenté ci yoonu murit ñëw ñu àndandoo liggéey bi loolu innovation la ndax touche biñ ci indi wax dëgg yàlla touche la boo xamante bi yombul te seen professionnalisme seenu taalibe seen savoir faire ak seenu xam dafay loo xamante bi kuy murit te sab xool seen xam nga ko te rafetlu nga ko moo tax biñ koy indee it indi ci touche boo xamante bi wax yaa innovation la. deuxième innovation yi mooy di ko soxna Soxna Xuma jiite ndax de tout le temps ba mu sosoo 95 ba tey jaaroon na ci Mouhamadou Nazir Touré jaaroon ci sëñ baaba Gueye amoon na période de transition du naan boo xamante ni Babacar Xuma moo ko doon gérer jaar ci Cissé Mouride jaar ci Cheikh Makhtar Diouf ak ci Mbacke yu fay ñooñu ñëpp ku ci ne góor nga pour une première fois jigéen jiite ko def duo ànd ko sëñ Youssou Diop. ñu doxal doxal bi loolu it innovation la loo xamante bi wax dëgg yàlla kuréel gaa ngi koy doog a gis waaye lu ci rek gis nañ ci yokkute goo xamante bi ndax ki xam bu la digalee boo defee rek gis njariñ li te kiy diglee muy sëñ Muntaxa xam na xàmmee na ràññee ba bu diglee rek boo ca toppee rek gis njariñ li ak li mu lay jël. Mir am ay xibaar actualité nationale et internationale Abonnez-vous à cette chaîne de ASG Production